bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina muhammadin wa ala alihi ajmain mbokk yi noo ngi leen di nuyu te di leen ziara xam ngeen ne noo ngi dëmmal wala bopp noo ngi dund weeru tedd weeru barkeel muy weeru ramadan al mubarak war woo xam ne suñu boroom moo ko baaxee jaam ñi farataal ko ci ñoom waaye defal leen ci ay ngëneel yu bari ba mu santaanee ne kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun ndax ngir maanaam ragal yàlla te ragal yàlla moomu moo gën ci lu nit di yóbbuloo wa tazawadu fa inna xayra zaadi taqwa boobu la boroom bi namoon ci jaam ñi xéewal kon ramadan lépp xéewal la yonent bi alayhi salaam wax ni njëlbeen gi yërmande la digg bi njëggal la mu gi ak goree ci sawara la loolu lépp di ay jiw ak ngëneel mu waxit ne bu dikkee dañuy jëng seytaane yi tëj sawara nga xam ne lu baax day yomb yiw day yomb loolu ci ngeen ramadaan la mu diggee ci ne lu ci waaye def ci lu baax day ful xadis boobu saxal na ne ku ci def benn la day taxaw taxawaayu ay farata yu bari ku ci def jenn farata mu taxaw taxawaayu ay téeméeri téeméeri fan kon lépp ngëneel ci kaw loolu lépp nag mu am ci genn guddi goo xam ne nag moo tax ñuy wax ni tey mu guddi gi ñu tuddee laylatul qadr guddig daraja guddig màgg guddig ngëneel koo xam ne borom bi subhaanahu wa taala moo ko may xeetu yonent yàlla muhammad nekk likati taarix dañuy wax ne xam ngeen yonent yàlla muhammad ay jamonoom nit ñi ba mu ne xeetu ñu gàtt fan la ko yàlla dajal ñëw na ci ñoom ku dund téeméeri ci xeet ya jiitu woon daan am ay ñaari téeméeri at ay lu ko ëpp gis leen ci yàlla xam ne li dund moom yu manqué tuuti ak yu demee noonu kon day mel na ñooña da dañoo ëppoon sens ci am lu baax ndax ko fi mën a yàgg lool yàgg ci lu baax kooku dañu ëpp sens te borom bi nag xeetu woon yàlla moom moom la taamu ci biir xeet yi ba defal leen loo xam ne defalu ko woon xeet moo tax ñu mujj ñëw moo gën a at waaye ñu ëpp yiw bokk na ca liy firndeel ëpp yiw gi mooy guddi googu nga xam ne genn guddi la loo xam ne borom bi subhanahu wa taala nee moo gën junni weer xayrun min alfi shahr te junni weer boo koy calcul juróom-ñett fukki at ak ñeent ak dara lay doon nga xam ne kon genn guddi koo xam ne soo ci jaamu yàlla am nga tuwaabay ku dund juróom-ñett fukki at ñeent ak yu teg lépp nga di ko jaamu yàlla kon kooku ku ci fekke ñaar dong wala ñett daan ngay gañe foofu ko dundoon ay téeméer téeméer loolu ci ngëneel li borom bi subhanahu wa taala lim jagleel xeetu muhammad alayhi salaatu wasalaam kon muy guddi ngëneel goo xam ne gu rëy rëy la gu màgg a màgg la moo tax eh, war cee sant yàlla sëriñ Tuubaa de da cee santoon borom subhanahu wa taala alhamdulillahi almujibi dil xadar man xassana fadlan bi laylatil qadr ñu ngi sant yàlla mi nga xam ne mooy nangu ñaan mooy borom dogal yëpp lu am noonu moom mi ngi jagleel ci mbaaxam guddi laylatil qadr kon jagleel suñu borom a waaye ak mbaaxam nag bu suñu góor waaye yàlla moo ñu ko baaxee rek loolu la sëriñ wax kon guddi gu a la goo xam ne jullit ñi war nañ ko fonk lool jullit ñi war nañ ko fonk lool ndax li ci nekk ci ngeneen day na loolu ñu wax génn guddi gi ci juróom-ñett ak ñeent genn guddi boo ci loolu ko mu dundal def ci lu baax tuyaaba ji ñuy seen mu caa loolu doon ci ngëneelam bu ko defee nag dundal ko it nag ci jaamu yàlla rek lay doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soxna Aïcha mas na ko laaj ne ko waaw su yàlla dogaloon may wax bokk na ci la mu ko waxoon na wax ni allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni kon nañ ci sàkku njëgal kon guddi gu ñuy sàkkoo njëgal la waaye guddi gu ñu jàng alxuraan la guddi gu ñu naafila la waaye guddi gu ñu berndeel gan la guddi gu ñu berndeel seen mbokk ak njaboot la ndax lépp ci xeeti daf yu baax yi la kon daal daf yu baax yépp da ci nangu ndax dafa mel ne tarat bu taxaw boo xam ne loo ci jëmu sax borom bi noonu la ñu ko xewale mu guddi goo xam nag coow am na ci ndax borom bi moo jublu sekkare yi borom bi ñaare moo koy jubloo lëm ngir mu bëgg jàmm farlu am na xadis bu wax sax ne suñu borom day bañ nit ñi sukkandiku ndax buñ ko xamoon nit ñi génn ko googu ngay fonk def ci lépp ñoo ci juróom-ñetti kenn li ci des ñoo ci sa bopp waaye borom bi nag bëgg nit ko moo tax mu lëm ko ki mu yeneen am na ci ajju moo xam ngeen waxtu woo xam ne ku dajee moom loo ñaan borom mu nangu ci biir waxtu yi kenn xamul kañ doon ku màggal ajju ma jëpp am ko noonu la ah ci waxi borom ko lëm wuuteel bari am na ci ndax ci biir Ramadan rek la nekk am na ñu ne sax ñëw cër ma baax day génn léeg-léeg mu ne ci weer beneen weer léeg-léeg mu ci gàmm léeg-léeg nangam waaye wax ji gën a dëgër ci wax yi mooy ci biir ramadan la wax ji gën a dëgër ci waxi borom xam-xam yëpp mooy day tuxum saxut ci benn barab loolu moom xaadis yi ñu tegtale loolu la firi ramadan kii lay tuxa dëgg saxut ci benn barab xam ne at mu ne mën naa mu doon benn waaye loolu lépp nag li muy tekki mooy nañ koy dàkk ci bis yëpp ku neexit nag nga tànn ci benn dàkk yooyu fonk ko di ko màggal ndax eh, lépp tànn la xëy na eh, léeg lekk nit ñi amuñ pas-pasu ñoom ba mu buñ booree di màggal yëpp yow nga tànnal leen benn bis woo leen ca dimbali leen may nga leen buntu mu dundal guddi gi te ginnaaw borom bi moom jëfam du sànku boo dajee moom amul yiw soo dajee wut ak moom amul yiw guddi gi ko màggal loolu borom bi subhanahu wa taala dogal kon moo ko jubloolu lam dëgg la waaye moo santaane ñu bàkk ko ci ay bisi loolu nag borom xam-xam yi jéem nañ ca gëstu lu ne dañ wax nañ ko wax ji gën a dëgër ci waxi borom xam-xam mooy day toxu ci biir at ci biir weer wi day ci biir weer maa ngi gis sax ab gëstu boo xam ne ci bindkati série biogut la moom mi ngi jéem gëstu ba ba wax ne eh, alxuraan bi ñu njëkk wàcc yonent bi alayhi salaam ca xaaru xiraa bu calculé yi mu yi mu yi mu boole yëpp day wax ne guddeeg ñaar fukk fan ak benn wala ñaar fukk ak ñett ci weeru koor la woon ca xaaru xiraa ndax dafa bari ay asaar yu mu dajale ba mu jox ko loolu ñu waxit ne ci guddi yu tool yi la yéen du aleisam sandal addis yi wax ne nañ ko seet ci xaaj bu mujj bi am wax nañ ko seet ci fukki fan bu mujj yi waaye te dàkk ko ci guddi yu tool yi ci guddi yu tool yi nga xam ne kon yooyu yëpp ay dàkkukaay la ku ca yam nag màggal ko am nga xéwal waaye ku màggal weer yëpp nag mu leer na la daje nga moom loolu moo tax gaa ju baax ñi it yàgg bëgg ñu bëggal ko seen ñooñ di di leen tànnal Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu lim na ci nekk li ci waxi borom xam-xam moom nag bokk na ci ñi nga xam ne weer yëpp mu daan dundal Sëriñ Tuubaa moom amutoon guddi gi muy bari lépp lu leen dundal guddi lépp teewul nag li ci boroom xam-xam yi wax mu gën di bokk na ci yooyu tënk yooyu ñu dégg di indi siiw ñu di ko wax tey lu yàgg la nag bu waxi sëriñ bi sëriñ bi leeral na ko indi na ko ci téeram leeral wax ne bu tàmbalee benn fan dibeer ñaar fukk na juróom-ñaar lay doon loolu tënk boo xam ne bu fi yàggoon la ay borom xam-xam ñoo ko euh, génne am ci loolu ñu soxna may a nga xam ne radiyallahu anha ku yàlla baaxee ba mën nañu wax fii ci senegal tey ku tudd laylatul xadar sam xel dem ci moom loolu yàlla dogal bu ci moom ndax yitte ju ñu ko joxoon ak pas-pas bu mu amoon dégg na moom ak lu mu ko jaral moo leen ci mbiru lay kilifa bi ko di ko dundal ci nañ ko baaxoo dundal di ci jàng alxuraanul karim di ci tudd yàlla di ci def salaatu ala nabi waaye di ci togg ay ñam di berndeel jullit yàlla te lu ci nekk ci loolu kat di yiw rëy tudd yàlla mooy li dàq seytaane mooy jokkale nit ki ak ak boromam fu mu noppee tudd seytaane seytaane am foofu yoon waaye bépp barab bu ñu toog di tudd yàlla seytaane jóge fa joxe ñoom gi nga xam ne it siiwu na ko lool lu ci nekk dana ko ci def dana ci rey lu ne ngir séddale ko jaam yàlla yi yonent bi aleyhi salaam moo waxoon ne bañ ko laajee ne ko lislaam day jëf yu bari la waaye jëf ju ci gën am na ci xadis boo xam ne daa wax ne ñaar tutaamu taama wa taqrawu salaama ala man arafta wa man lam taarif mooy nga joxe ñam ak di nuyoo donc jullit bu war a mu nuyu ko ak ñu joxe ñam kon soxna si mel na ne jëfandikoo na xadis boobu ci jël guddi gu tedd dàkk ko tànn ci tànn gaa yu baax yi aw yoon muy dàkk guddi googu nag di ci màngal guddi lay xam ci jigéen yoo xam ne société bu mu nekkoon jigéen ñu bari jàppewuñ seen bopp nii war nañoo taxaw dara ci diin moom nag mu xam muhimma bi ko yàlla sant waaye xam yar bi ko Sëriñ Tuubaa yaram ñu xam ne góor baax na jigéen baax na di wala fi wax ci diin lañ ko war a gën a jëfandikoo Sëriñ bu ñëwee dafa yar ak njabootam bu góor ak bu jigéen yóbbu leen daara ñuy jàng alxuraan di ko mokkal sax may mii nag suñu borom baaxee ko bokk ci ñooña xam loolu nag lañ ko doon yar mu sañ tànn bis te tànn it tànn bisu boppam daa wut bis xam ne bisu suñu borom boo xam ne jullit ñëpp ku bokk yiwu nee na ca nekk mu fas yéene doo doon ko dundal waaye fas yéene koo bokk ak jullit ñi lu ci am solo la ndax bari na ci nit ñoo xam ne bu doon ñoom dong rek xëy na amul moyens yi wala seen pas-pas dëgërut faaw dañuy fanaane nelaw guddi yëpp moom nag mu sàkk bis boo xam ne bu dikkee woo ci jullit ñi woo ci taalibe yi woo ci xarit yi ñëpp daje ñu jox leen ay dokk ñu jàng alxuraan ay jukki ñu jàng alxuraan jox leen ay dolli xasida ñu jàng jox leen ay ay kurus ñu tudd yàlla yan doo def lu baax bu ngoonee bernde yu ñu baaxoo defal ñu defal leen ko te xam ngeen ci ramadaan li yonent bi alayhi salaam nee na ku ci dogal aji woor ku ci dogal aji woor da am ci tuyaaba te lim boo xam ne kenn xamul mu te it tiyaaba jooju li ñu bari bari du wàññi ci tiyaaba yi aji woor gi dara maanaam du caa génne dañuy jël ci tiyaaba yi aji woor gi jox waaye suñu boroom ci maa xam ku nit woor ba ngoon nga dogal ko am nga ci yiw boo xam ne kenn xamul toll ba waxee saxaaba yi ne ko ah dogoog nit de du ñëpp dañ koo déggee woon ne mooy nga bari alal togg ñamu doy yonent alayhi salaam ne dogal gi muy wax benn doomu tàndaram boo jox aji woor bu dog am nga tiyaaba gi benn guuxu ndox wala bu soow boo jox nit am nga ko nañ xool na ci biir boobu soxna may kon ñaata nit ñooy ndogu ci tarangaam ci ak mu jot bis yooyu te kenn nit koo dogal rek am nga ci teewlu lu jeex comme jàmm liggéey bu réy la boo xam ne te yonent bi ne ku fi sunnaal sunna bu rafet tuyaaba ja yaa ko moom ba képp ku la ca royit tuyaaba ja sawal da cay génn te nii ñu koy dundalee fi mu nekk nañ ko fonk nii nag nit ñi xamoon nañ ko doon nañ ko jàng waaye nag ci soxna may la yaatoo loolu yàlla dogal moo tax ñu bari du ko ci rey dëkk yu bari nga dëgg ñuy woote kilifa yu bari ak penc yu bari ñu dafa wan woote bis bi di fi màggal lay tuxa kon loolu liggéey bu rëy boo xam ne ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala suñu borom fayal ko ci te yàlla saxal liggéey ci njabootam ñu gën lu am solo la ci jamono ji nga xam ne dañuy soxla léeg-léeg dajale jullit ñi di leen defaraat seen ruux ndax ni àdduna xat-xati àdduna demee yi fi fi àdduna di këf nit ñi léeg-léeg dalay sa pas kon nag looloo la ci barab dundalaat sa ruux ci ay tudd ci ay jàng alxuraan ci bernde ba nga xam ne boo delluwaat da ngay yeesaat porte boo demee dana loolu bu ci nit yàggee day mujj euh, dana mën a të àdduna mën a të seytaane kon dund gu mel noonu la soxna may doon jëm ci njaboot gi kon muy liggéey boo xam ne war na caa nekk royukaay jigéen ñi yëg ne am nañu risaala bu rëy ñoom itam ci fexe ba taxawu diini soxna may day la ko waroon yépp def na ko ci taxawu diine mi wutal na diine bis def ci loo xam ne dañ ci fii ci ci réew mi ay ay góor lañ ko xamee woon waaye moo taxit ne yàlla fayal na ko bis booba tax na aw turam fii ci Sénégal kenn dootu ko fàtte te saa bu du doxal ba dugal ku koy màggal ci mu gi wala nga di ko màggal feneen la sam xel daan dem soxna may moom ndax li mu ciy def gëw ma ne am na fii ci Sénégal ku koy màggal di ci di ci day du toll li mu ci dajale li mu ci def ci alal ci yoonu yàlla li mu ci jàng ci alxuraanu karim ak tudd yàlla ak salaatu al nabi jàpp mooy ne am na fenn fu muy xele loolu nag liggéey bu rëy rëy la boo xëy boo xam ne ah, day wane ne jëf ji nangu la dafay jógee it mu jeex waaye suñu borom dafa ko tawfeexe ba mu fi njabootam jàppe ko ndono loo xam ne fa suñ yéene mu uh, mu saay loolu di wane ne jëf ju nangu ndax jëf bu nangoo suñu borom moo koy taxawoo kon dañuy ñaam bu baax njaboot bi ñoom itam liggéey bi gën a jëm kanam rawatina saa bu dikkee liñ ciy boole waxtaanee diine yu am solo yi nga xam ne daanaka dañ ko profité daal lépp lu soxla jullit di jariñ jullit ñu di ko def ñu ngi ciy boole yi mbokk yi ay mbokk yoo xam ne nii seen i yitte ak seen jot maytu la ñu daje nga dal leen bi benn barab ñu bokk dogandoo ànd saafuwante loolu li wu ci nekk kenn fa mu toll kon bu ñu doon seet guddi daal danañ gis ne maanaam lépp yiw la kon euh, woote bu mata woote la waaye ñu xam ne kon soxna si euh, taxawoon na di seen taxawaay bu loolu nag ndono la ci moom ndax ku dollu ci ay maamam soxna jaar Buso doy la ci misaal taxaw na ci diini taxawaay boo xam ni histoire fàtt mëntu ko fàtte loolu dañ koy waxee ab dëkk boo xam ne ci saw tur la taxaw jumaa joo xam ne ci saw tur la taxaw loolu ci li nga xam ci histoire xamaguñ jigéen duñ ak ak góor te soxna Jaara suñu boobu defal na ko loolu te pas-pasam ak liggéeyam liggéeyal yàlla bu sell ci ñi àndoon la ñi nekkaloon ci la ko def ci kon nag bu soxna si ñëwee di sëtam jaaru mboor moom mel na ne wàccul yoon wa kon loolu it njaboot gi ci des ñoom doon nañ ko ci ñuy soxna si bunt bi ñoom itam bunt yu baax yi ci des it ñu fas yéene yaatal ci liggéey bi di wéy di màggal la du xadar waaye nag meññet mi ci juddoo loolu ñu fexe ba muy des ci njaboot gi ñu di ko dund loolu daal gis nañ ne baax nañu fàttali rek ci waxtu yu ñu koy dëgmal ñu ñaan yàlla nag suñu borom dajale nag moom ñu dundal ko dundoon bu gën a nag ci ayib te lépp luñ ci def ci lu baax yàlla nangu ko te jotale ci soxna may moomu ak way juróom bu tedd wa taxaw mu di ko def ak bépp jullit boo xam ne amoon na ci yéwante rafet ci njort yàlla ma yëpp mën na ci defar aduna yàlla na ci suma defaree aduna jafe-jafe yi jamono di jànkonteel suñu borom mën na cee jóge ci liggéey boobu defar ko so faj aajo yëpp yàlla na borom def subhanahu wa taala wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh